naa kon bind bi ngeen te jëloon ci suba fa lañuy laaj ay question ngeen continué xam nga yaa ngi jàngoon fara faslu faraidu salaati dama la laajoon ni la julli ñaata farata la danga koy ñëwee fukki farata ak juróom moo nekk ci julli waxoon naa la la fukk ak juróom yi ñett kese ñoo doon ay wax ñett bu ci nekk tàmbalee A ban ak ban la. waaw. ñett yooyu ñoo fi doon ay wax kon fukk ak ñaar gees yëpp ay jëf la loolu la ñu waxoon. ci kon bisimilah. léegi nga limoon ko takraar bi di ba noppi fasul. mooy nga wax lan. nga fas ndànk ci ndànk ci sa xol waaw waaw waaw mooy mooy mooy mooy ci waxtu yee tudd noonu. atia. Hmm. tabax armal mooy lan. kon loolu say nopp waaw. kon taxawaayu armal farata la. taxaw bi ngay taxaw di kàddu farata la. aywa. farata la. taxaw bi ngay taxaw di tari Faatiha farata la. rukkoo farata la. siggi rukkoo ba farata la. kon am nga juróom ñaar daaneel hmm. hmm? acca bismillah hmm. kon yaa ngi dugg ci juróom ñaari farata tudd nga ko kabaru armal taxawaayu kabaru armal fatiha taxawaayu fatiha ruko ak ruko ak yéene bi nga jàng mu juróom-ñaar mm-hmm. kon yaa ngi dugg ci juróom-ñetteelu farata tey mm-hmm. ban la mu ne wa sujuudu ak sujuud ala jët ati ci sa jë mm-hmm. wa sujuudu ak sujuud ci sa jë waraf ak yëkkatiku minhu ca sujuud ba jàppal kon sujuud farata la muy juróom-ñett sikki sujuud farata la muy juróom-ñeent wal ihtidaalu ak yem moom mooy boo taxawee nga ne temm ca kaw wala boo boo rukkoo woon na fa ne tekk tuuti wala boo sujjóotoo ba siggi tekk soo si ngay doog sujjóotaal loolu ngay def noonu ci farata la bokk. kon kii rukkoo daal di sarale baaxul. ñu koy daal di. mel mel ni mel ni kuy def sport. karab mhm. karab sëg siggi taf ah loolu jël ki ànd am nga kay moom buñ dem jógee ci seen salon yi dañu dañuy sonn moom day mel seen diggi saw ci ñoom ah sama ñum tànte waaw du baax ak bu nit jàng fàtte bi dafa su mëcc alhamdulilah ma kim xam ne sa xay sama xama wara dara moom allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar daal sànni kon ko ni sonn naa man yàlla dina taxawaat sa julli ba mu jekk te nekkal ko dee yóbbu ci salon boobu koy dem kooku du baax kon julli ndekete kon da ngaa war a teey boo këppee sëb jë dafa tek tuti jang tasbihati subhana rabbiyal ahla subhana rabbiyal ahla subhana rabbiyal ahla mo ci garagat xana ba waxe ñet waxee ñetti yoon kay xanaa war nga fa ne lu bu no ñew 3 secondes bopp waye kup. këpp këpp këpp man boo ma jiitee xam ne lu ci tok nee ba nga nopi ma jóg kaabara saabu man kenn ko def borom diglu bu hôpital yi sëñ bi waaw ah, yeeg boo reyee koo xamante ni dafa naan fonde ba biir ba xamul nu toog da koy rey guli guli da ngay yëgal xam nga jaxase biir bi xam naa ngeen rekkee ba rekk du ngeen mën a julli wala ngay wala ngay abbar rek wala ngay ñax tooñ hmm. hmm. sax nga fay sax ci faratay la bokk wa tartiibu ak toftale bay na farahidihaa diggante faratay mooy farata bu jàll nga teg ci bu jula tegu dégg nga kon sujjóot nga lu ci war a tegu si sujjóot rokoo nga lu ci war tegu si gi rokoo jàng faati lu ci tegu taxaw kon nga jàng maanaam kabru armal taxaw taxawaay bi maanaam ni ngay toftale farata bi jàll nga teg benn farata wa wa tartiibu ak toftale bayna farahiliha diggante farata yi ak ban wasalaamu ak sëlmal farata la de julli ko mu sëlmal baax na julli ba noppi rek taay ba ñokki dem sa yoon soxna kan faati fàtte woon naa ko loolu doo jigéen ni julli nga yàqu da nga déplacé wu kon wasalaamu sëlmal farata la waaye wa julloo suboo jataayu sëlmal ba wala taaya bu ah salaamu aleykum taaya bi xam nga moom sunna la waaye bi ngay wax ah salaamu aleykum na ko ca ca em mii ngi kumba farata la jataay nga toog di ko wax farata la dégg kon léegi am nga fukk ak juróom am nga juróom-ñaar fee xam nga léegi teg ci ba sujjóot bu juróom-ñett waraf minhu mu juróom-ñeent mhm. wal ixtidaalu ak yemoo bi mhm. wattu maanilatu ak sax ba nga fay sax mhm. waxtaan ci boole faraat yi faraat yi ak toftale yi wasalaamu ak sëmmal fi koy juróom yi nga waxoon rek mu juloosu gis nga ko acca ñu del sàcc ak jëf ati ci sa ak yëkkatiku min fi ca sujjóot ba wala ixtidaalu ak yemoo

ak yemoon watu maani datu ak daal ak watu lu mu wax waaw ak loolu ak daal boo ak jotaayam ca ak sax. léegi lim ko ci waral te bañ ko jàng ma léegi tàmbalee fële. faratay julli waaw. yéene rek yéene ak kabaru armal ak taxaw la kabaru armal ak jàng ak taxaw la jàng ak rukum ak sujjood ak sujjood ak sujjood sujjood ak yamu ak dam ak taxaw doom ak seen i. ak doom ci toolu seen i. aywa. Mm-hmm. bisimilah loolu mooy seen bunt laxdar yu kon julli gu bar baaxut julli goo yéemawul boo taxaw teem baaxut julli goo saxut boo boo lori sa sa sujjóot si jëba baaxut bu fekkee toftale wu faratay baaxut su fekkee sëlmaloo baaxut su fekkee waxu asalaamaaleykum baaxut kon yooyu mu nga xam mooy faratay julli fukk la ak ñeent ci téere bi di fukk ak juróom ci tasawul si xaar mm. kon seen njàng laxdar yu moo nekk moom tey mm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.